salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum diaspora bi ñu ngi bëggee kull di leen siyaar di leen wax ni ñëwati ngeen seen émission bi nga xamante ni mooy tëj jamono muy dee leen ruube fii ci Jokko TV nee naa leen maa leen di indil actualité bu leen ragal bu leen ragal xam nga dama doon nelaw waaye damaa déglu jabaru Sonko bi génn wax wax du rëy waaye yow yow yow yow na namee Sonko yi nga nam ko à mais meew yi nga meew nii mel ni ku dëkk duul gën sa leen. Sonko mo la wax musul xam Adji mais c'est bizarre vous conjuguez verbe mensonge elle au l'imparfait tu ma vous ma nous ment il ma loolu mom ay duul ndax bi nga ko waxe gis na xalé yi la biñ la vaaree dañoo indi Sonko bi mi wax ni dem na fa ya ngi deg indi nan sax bi Sonko nan ah, lumay doye may bu ADC waye Ahmed Khalifa Niass gaa kooku di jaay bay koy bi noonu te mu nan boko mosé do doo momit nee na ñoom ñetti kon kan moo ci galo kon xooma dàngi ndax nee na ñaari yi sonko yépp ñoo bërëg dayee nee na amuñu karaw danoo karaas beneen bi ay màgget lan kon kan moo ci dàngin bu ABC am mette koo wax je veux qu'on soit beneen bi ci topp mooy sonko moom dafa def grève de faim boobu ba léegi lekkut ndax nee na buñ ko indilee lekk bi dañuy bañ lekk bi dugg beneen ba ca topp mooy lekk biñ ko jox ci prison bi nee du ko lekk moo génne woon locomotive yi beñe léegi beñe sax mënatu ko am maa ci tane ci patriote yi ndax boobu ba léegi aw ma beñe dugub ndax deux ans la la Macky Sall di xam nga perpète bi Macky Sall nee na beñe dugub deux ans man beñe fëriñ laay lekk boobu ba léegi waaye patriote la je suis un patriote beneen bi ci topp mooy waa yéen Sénégal waaye yi bon yi génn léegi xam nga gis ngeen ko yéen Sénégal yéen daal di ngeen a bëgg a nekk population bu caga ba keroog ngeen di dee yéen ay doome xaram bajo moom bajo moom moo ko weñee yem léegi bajo moom amul wala ah damaa xam ne ay xale yu ndaw góor ñi nekk fi yor ay yaboo yu baax jëloo leen yaboo yi dugal ci biir beñe yi ngeen jël ay paaka di loxoti kii moom ciseaux la yor paaka ciseaux yu mag yooyu waaye yow boo doon xóoyal ba dagg li nga war ay waay waay waay waay daa suma du yomal xëyaamati moo tax yomal xëyaam dina metti xale bi maa koo gis mu yor weñ di xóoyal ni kuy jàmbale bon beneen bi nga jël mbott mu mbott moom xam naa ne génne ko tee dee ne ko yabax waaye yéen bu nu demee bay jël mbott bi ko dugal ci bajo moom góor fu mu jëm nan dagg suñu yaboo yi mais na ngeen a bon bëggatoo leen ay góor léegi dematoo leen def ay yëfi giwin li ngeen def mooy jël ay mala ay mala di ko duggal ci ay taat yow de barke Serigne Saliou bis bu mbott bi réeroon sa biir bajo bi di nga xam ni bajo kenn du ko fooye doomee xaj yaay doomee raam barki démb laa gis xale yi dex meew fee ñuy rëbb naan ay mbott la ñuy doyoo leen ko dara ku fi def locomotive boobu bu nu waxantee dëgg jigéen majeure partie amatuñu valeur xamalu tax bu njëkk ba jigéen boo ko gisee boobu la bajo amoon valeur ndax boobu ñun ba ñuy mat ci bajo wax naa leen bajo xorom lay saf léegi ay crème lay saf ak ay cristal ak doomee xaj yi lu ne ngeen sotti ko ci ay lem ak yéen ay doomu raam ngeen quoi mais fii ngeen may fekk ku fi defati lu bon je vais maa gën mu dus nag laa wax fii ci Jokko TV dama ne fii la mburu mi xoyamee fii lay ñoree beneen bi si def mooy rakk waali fekk ba takk na jabar yow takk na jabar waali sekk ani la lépp lu mu doon def def fa concert bu rëy mais c'est bizarre te jabar jax yéen cay dégg la ma cay dégg kenn ku ne yaa ngay yaa ngay yàmbi di seex waaye nag xam nga booy yi waalee suñu mag rek bu nu bëggoon a takk bien see dañ koy takk waaye sëy ba am na ñu naan dana yàggam du yàgg ñi naan dana yàggam du yàgg ñi naan sëyub sëyub sëyub internet la ñu naan sëyub biis la ñu naan sëyub buzz la loolu lépp yàlla te te man li ma ci gën a jaaxal mooy il faut ma revenir tout ci gone googu yoron paaka bi di di jam boppam waa yow waaye yow yow yow xam nga kii daa saaga ndey képp kuy góor loolu mooy góor yi maanaam seen yaboo yi baaxatul ba pare yéen bi ngeen juddoo ba léegi mës ngeen a gis bajo bu tul yow yaa am fit doom kii dafa mel ni papaam day jaay tul di koy seey fii la lépp di doxee tàbbi géej ci dee leen ruube